tey daje nañ fi ngir di tecc daje nañ fi tay ngir di tecc li nga xamé ne colloque international sur le soufisme té mu amone tam bu am solo bo xamné dañ doon waxtané tasawuf ak développement ginnaaw bo xamné ne borom xam-xam nak liggéey nañ ci liggéey bu reuy ñu di leen sante amna ay lo xamné roté na fi lolu ñuy wané né li nga xam ne moo di développement yëmul rekk ci koom-koom moo xam ne day yokk waaye gën naa yaatu loolu ndax la ci jiitu moo di ne jëmmi doomu aadama ci boppam bépp fan na boo xamante ne yitte woon na ko aajo woon na ko dañ ko caa war a sét dañ ko caa war a bàyyi xel ñu nekkoon développement kat mënut am ci lu dul nit ki ci boppam jàngaluñ ko ci nit ki ci boppam yaruñu ko ci lu nit ki ci boppam làmbuwut ay jikk yoo xam ne ay jikko yu rafet la ba tax na ñu ne kon yooyu kat nañ ci gën a bàyyi xel gën a fonk jàng gën a gën a fonk yar ñu ne itam nag li nga xamante ne bii moo di ak yokkute jaamu yàlla la ndaxte bu ñu fi suñu borom wàccee ngir ñu di ko jaamu loolu mooy tax li nga xamante ne bii sunu nekkin dana mën a woyof bañ mën a nekk ci àdduna ba mën koo ko jàmm na nga xam noonu la noonu la noonu la noonu la waree ñu wax ne itam li nga xam ne moo di wax nekk na loo xam ne lu am solo la ci ci wàllu yokkute koom-koom te seet nañ ne wax wax woowu ñi nga xamante ne bii ñooy kilifa gi ci Sénégal ak Sénégal fii ci biir réew mi dañ ko fonk loolu nañ ko mel ne Cheikh li nga xam ne euh, def na ko ci ñu war ne itam

ay projet de développement yu mag ndax gis nañ ne mën nañ ko am nañ kattan bi te loolu aussi bu ñu ko defee dina gën a yokk koom-koom yi euh, ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo bokk ci ñoom yokk koom yi ñi nga xamante ne bii aussi ñooy ñooy réew yi kon daal ci gàttal loolu mooy li nga xam ne mooy li fi rote dinañ ko tënk nag lépp ci ay téere ak mbooleem euh, conférence yi di sant rek mbooleem ñi nga xamante ne bii ñoo fi dikkoon bokk ci participants yi jóge ci ay réew yu bari jóge ci biir réew mi jóge ci biir dëkk bi ñëpp di ay ñëpp di ay borom yi ñëpp di ay borom yi xam-xam dina xamal itam ne li nga xamante ne bi moo fi rote allah dinañ ci taxaw bay ji xel ba nuñ ko mën a jëmmale rek bu soobee dinañ ko def comme ñi nga xamante ne bi moo moo jiitu woon